la ma waxoon nee na lam waxoon doomam yeeg sëtam yi. ni leen. ni leen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. dama koy ànd ak yéen. dama koy ànd ak yéen rek. ci kaw. ci kaw. ñi ji ñi jiite moo ma jiital. ci kaw jiital gi mu ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. bu ma jiitoo. dama leen di geesu rek. di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw ma leen séenu it di taxaw nag leen rek. bu ma seen seen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ak yéen. waaye dama leen di jël topp ci yéen. waaye. kon kon kon kon bu ma bu ma dajee ma jël leen damay dëpp bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo waaye damay mu mu jiitoo. dañ lay yàq diine maa mu yàq taay maa mu yàq diine. du ma ko waaye man de bu ngeen ma jiitalee dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi du ma ko def mukk. waaye waaye may doxit nag. damay di geesu. waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet seenoo seen gisuma leen it ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko wut si leen. bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci yéen. bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbi mu ci biir lool. nee du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. yàq loo xam yàq addina waa ma yàq diine. dara lu yàq addina wala diina du ko def. diine du jóge ci moom mukk. ànd naa ñëpp. ànd naa ñëpp. yor jaam ñi. te yéen yërmande la leen yore. nee na li ci def nag yàllaa yori jaamam te yërmande la leen yore. day ñaan mu yokk rek. te yaatal ko lool. yërmande gi ak yaatal gi day ñaan yokk. yërmande gi ak yaatal gi day ñaan rek mu yokk. maa ngi di nuyu bu baax a baax. nee na nag ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di. nee na mi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ko ñaanal bu baax. bu baax a baax nag. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen yéen. nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen da ngeen ko ñaanal bu baax. maa ngi nuyu bu baax a baax nag. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen yéen. nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen da ngeen ko ñaanal bu baax.